Sénégal Gambie jaar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaan ngeen partagé ma sama vidéo bi le maximum ba képp koo xam ne gambien nga nga mën a déglu sama message bi te dégg ma ndax nag senegal ak Gambie dañoo bokk ndey bokk baay lu wokk senegal xuri na Gambie lu xuri Gambie wokk na Sénégal dafa mel ne nga ne ndox gu ñu boole suukar yëngal boole naan rek wala boole tuur yéen waa Gambie est-ce que xam ngeen ne da ngeen a fal Adama Barrow waaye du moom mooy jiite Gambie naam sax ñu bëri ci yéen umpale li may wax naka ngeen mën a fale président ba nga xam ne wóoruwu leen yéen waa Gambie naka ngeen mën a fale président ba nga xam ne. wóoluwul kaaraangeem ci yéen waa Gambie naka ngeen mën a fale président boo xam ne kaaraangeem yaakaarul ko ci yéen waa Gambie Adama Barrow ngeen fal waaye Macky Sall moo jiite Gambie te lii may wax dinaa leen ci indil ay firndeel te bëgg ngeen bàyyi ma ko xel bëgg naa tamit sama message bi ngeen envoyé ma ko Issa Fall ak Ousseynou Dabo ndax ñoom ëllëgu Gàmbi dafa nekk ci seeni loxo est-ce que yéen waa Gàmbi xam ngeen ne bi ngeen falee Adama Barrow ba tey Macky Sall moo ko jox ñu koy garder te mu ne du teew ñu natt ci ëkk su ngeen weddee li ma wax dem leen ngeen xool Adama Barrow ba mu nekkee président Gàmbi ba léegi Macky Sall moo ko jox ñu koy garder. moo leen di defloo te moo leen di dindiloo waaye yéen waa Gàmbi da ngeen a war a xam ne ñun ak yéen dañoo bokk ndey ak baay ni jëlee fi Macky Sall doonee ci ñun farata ñun Sénégalais noonu la doonee ci yéen farata yéen waa Gàmbi ngir ngeen jëlee fa aadama Barrow ndax ñoom ñaar lépp lu yàqu ci Sénégambie bi ñoom ñaar ñoo ko yàq xool leen seen doom yi joxuñu leen liggéey. lu góorgóorlu ba jël seen ay gaal ñëw fii ci Europe Adama Barrow ak Macky Sall dañu signé ay convention ak tubaab bi ngir ñu jàpp doomu senegal ak doomu Gambie di leen delloo seen réew ci ña nga xam ne dañoo ñëw fii ngir pour am pour yóbbu dimbali seen ay waajur waaye ca booba famille Adama Barrow ak famille Macky Sall amuñu problème mu lekk amuñu problème mu naan famille Adama Barrow ak famille Macky sàll amuñu problème faju ndax ñoom waxtu wu ñu bëggee faju jël seen doom yeeg seen jabar yóbbu leen Europe ñu faju waxtu wu ñu bëggee jàng jël seen doom yeeg seen jabar yóbbu leen Europe ñu jàng ba pare tamit dëkk di tibb alalu réew mi nu mu leen neexee li tax nag ma ne leen Issa Fall ak Ousseynou Dabo Issa Fall dafa nekk ndaw lu am xam-xam waaye dafa xaw a yàkkamti àddunaam Ousseynou Dabo buñ koy méngale dañ koy méngale ku bëgg réewum Gàmbi ñu am yaakaar ci moom lool ne place aadama Barrow bii tey Ousseynou Daabo moo fa waroon toog bu ko fekkul woon ci kaso bi ci jamonoy élection yi waaye nag comme ni ngeen ko xamee rek Afrique waxtu wu ñu amee yaakaar ci benn nit ngir fal ko ngir mu soppi ëllëgu réew yooyu noonu dañuy fexe ba jàpp ko dugal ko ci kaso bi te lii dafa war a dakk Issa Fall bu fekkee Gambia ñor na la bu fekkee sene Sénégambia ñor na la demal nga jox loxo kii di Ousseynou Daabo ngeen ànd liggéey Gambie ngir ëllëg ngeen mën a sauver askan woowu noonu ndax soxla nañ ko ci yéen lool sa jàng matee na ko sa xam-xam matee na ko te yàlla suñu borom baaxal na la ba booy wax ñëpp dinañ la déglu kon bul xool sa ay intérêt politique waaye xoolal li nga xam ne moom la Gambien yi bëgg nga def ko sur yéen Gambien yi bàyyi leen xel këne jële fi Adama Barrow ak jële fi Macky Sall farata la ci ñun maa ngi leen di jaar bu baax di leen màggal te di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaan sama message bi mu fekk leen ci jàmm Gambia amul ay hôpitaux yu ñu mën a fajoo Gambia amul ay place yu ñu mën a divertir Gambia amul liggéey bu fa ndaw ñu mën a toogee kon bàyyiwaat leen xel bu baax que seen ëllëg ak suñu ëllëg ñun Sénégal benn ëllëg la ndax benn réew lañ